jàngatu Baye Cheikh altine bu jot ci UCAB FM. mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi lu xew wala lu xewati mbokk yi ndeke bëri na luy nuru dëgg ci dëkk bii te du dëgg mbokk yi waaw ku weddi jaaral corniche moo ne ay fan yu néew ci gannaaw de nuru dëgg waaye ba dëgg yegsee xam nañ ne du dëgg mbokk yi lawoon ca gaar ba da nuru dëgg waaye ba dëgg yegsee xam nañ ne du dëgg mbokk yi marché Ocass la fa doon nuru dëgg ndekete du dëgg mbokk yi lu xew mbokk yi damay laaj rek waaw lu tax mu bëri lool luy nuru dëgg ci dëkk bii te du dëgg ndax dan koo bàyyiwul xel ndax danoo war a seetaan business bi tegu ci kaw daara ji sëriñ bi ne fii daara la ndax dañoo war a seetaan suñuy yittey bopp gënal lu dëkk bi mbokk yi damay laaj rek ku xam wax ma ku jaar corniche xam nga ne daf doon nuru nuru lu dëgg te du dëgg mbokk yi ku jaar gaar ba xam nga ne daf doon nuru nuru lu dëgg te du dëgg ku jaar marché Ocass xam ngeen la fa nekkoon da nuru nuru dëgg te du dëgg mbokk yi dëkk bi sëriñ bee ko sanc fàggu ko ngir lan jamu yàlla kese mbokk yi fàggu ko ngir dafa neex a bay fàggu ko ngir dafa neex a utee koom déedéet da koo fàggu ngir jaamu yàlla mbokk yi ndax xam ngeen ne ñun ñoo dëkkal sëriñ bi ci dëkkam bi lu xew mbokk lu tax ñu bëgg fee fee dëkkee nu nu neexee te bañ a bàyyi xel ni sëriñ bi bëgg ñu dëkkee ko fi kon nañ bàyyi xel ne dëkk bi dëkkub daara ndax dañuy seetaan bisnes bi ñëw toog ci kaw daara ji ba dëkk bi doon dëkkub business yow mi nekk ci mbedd mi bàyyil xel ne fi nga dëkk dub dëkkuwaay yow miy yaxantu ci mbedd mi bàyyil xel ne ab jaaruwaay du ab jaayukaay mbokk yi na nga bàyyi xel ne 1932 sëriñ Modou Moustapha bindoon na leetar tubaab bi daal di ne ko damaa bëgg ngeen ñëw nattal ñu dëkk bii mbedd yi dafa war a yaatu damaa bëgg ngeen ñëw nattal ñu dëkk bii kër yi dañoo war a rangaloo ci mu mucc ayib dama bëgg ngeen ñëw nattal ñu dëkk bi ndax danoo bëgg mu doon dëkk boo xam ne modèle lay doon ci wàllu diine modèle lay doon ci aw dëkkin dëkk boo xam ne ña fay dëkk ay model la ñuy doon mbokk yi moo tax 1996 keroog ba réew yëpp daje ca Istanbul ca Turquie Touba la ñu jël ne leen kaa leen wax ñu nan ngeen def fa seen dëkk bi mel nii mbedd yi yaatu lool kër yi rangaloo amul caaxaan amul tux amul naan amul fo amul aéroport amul port dañoo am ku kenn amul ku am ku kenn amul war mel nu kenn melul am det mbokk yi du dañ ne sëñ Tuubaa amul morom waaw ñun ñi nga xam ne ñoo dëkkal sëriñ Tuubaa ci dëkkam bi danoo war a am moroom ndax dañu koo fàtte am dañu ko umpale barab la bu nuy jaamoo yàlla dafa war a yaatu dafa war a sell dafa war a féex dafa war a set dafa war a sell bokk yi lu xew ñun ñi nga xam ne ñoo dëkkal sëriñ bi ci dëkkam bii nag ndax dañu fee war a dëkkee ni ñu ko bëggee wala dañoo war a dëkkee ni sëriñ bi bëggee mbokk yi damay laaj rek sëriñ bi du yàqal kenn jumaa jii lañ njëkk tabax ci dëkk bi balaa beneen tabax di fi jëkk kon nañ bàyyi xel dëkk bii model la war a doon te da koy doon ndax bu mbedd yi yaatoo ñoo koy jëriñoo bu mbedd yi setee ñoo koy jëriñoo te barab bu nuy jaamoo yàlla nag dafa war a set dafa war a sell di xeeñ lu neex daa war a yaatu te daa war a féex mbokk yi la newoon ca kamb ya ca ngëlemu di nuru dëgg lu dëgg dëgg jib na de mbokk yi waa kër maam Cheikh Ibrahima Fall jaar nañ fa yow mi nekk ci yoon wi yow mi dëkk ci barab bii nga xam ne dañ ko fàgg ngir ëllëg buñ bëggee def hôpital wala daara bàyyil xel ne du dëgg lii dëgg mooy plan bi nga xam ne njabootu sëñ Tuubaa bàyyi woon nañ ko fii ndax fii lay yem lenn lu ci nekk ak waxtoom yoon wii du yoonu xaaraate kenn duñu ko defal nag bés dana ñëw baat dina jib lépp lu doon nuru nuru lu dëgg danañ xam bëccëgu ndër a kàmm ne du dëgg dëgg rek a wóor mbokk yi fagarukat moo gën faju mbokk yi fu ñuy setee ku fa tilimee fooy setee mbokk yi damay laaj rek ku xam wax ma jàngatu Baye Cheikh altine bu jot ci UCAB FM.